parce que mënoo cee dem ci benn politicien ci Thiès ni ko loo ca teg Ousmane Diop amul. d'accord d'accord. donc kon su ma waxee loolu ah, xam naa fi ma koy wax. Mm-hmm. te te te wax da koy kii kaami la nii. Mm-hmm. jotoo ma ñoom dara. amul kenn koo xam ne parce que wax da koy wax mu dëgg. amul kenn ku ma jotee ci ñoom dara ci politicien Thiès amul. Mm-hmm. waxuma ci kenn lu ñaaw defuma ci kenn lu ñaaw amul delloo man li may wax dama koy wax muy dëgg muy leneen jeex na kon donc loolu nga ma laaj rek ci laa la waxee ñi la man mënumaa jóg man di leen di leen jox conseil publiquement di leen nangam te ñoom ñëwuñu ci man wala ñu may ma possibilité ma jokkook ñoom di waxtaan échanger ci Thiès koo musul toogal di échanger ci cees yaakaar naa ni doo fi mës a kii ne su ma fàttalikoo élection 2014 hmm. bi nu jeexee jeexalee mmh. élection 2014 alors mmh. euh, docteur Pape Amadou Ndiaye euh, ministre de mmh. docteur Pape Amadou Ndiaye euh, ma di ko nuyu de passage moom laa mus gis mu convoqué ma woo ñaari nit jigalaayam ku naan Matar Thiaw Logoda ak ku naan Ousmane Diop Bey Ousmane Bey Diop ñooñu doon Medina Fall ñu ñëw élection yi bu mu jeexee mhm. ñoom ñu woolu ñu ma danaa soxla ma leen ñun ma docteur Pape Amadou Ndiaye moo la bëgg a gis ma leen abon ah ñun ma waaw ma leen ba jàmm la ñu ne ah danoo bëgg a waxtaan ci affaire politique daal moom nee na foog nga ñëw comme booba man mhm. soutenir uma mouvement présidentiel ma daan ne ah man de bu may dem di wuy ji politicien mu may woo ci lii du ma def mhm. ma ànd ak sama doom ak sama soxna dem wuy ko bi ñu ñëwee mu dalal bi ñu toogee lu ma la ma wax mun ma damaa bëgg nga ñëw jàppale si président Macky Sall nga ñëw dugg si APR nga ñëw dugg si jàppale ñu mouvement bi ñu liggéey ñu échanger bu baax ma tontu ko à ko man saa yu ma xëyee maa ngi dox ci luy waddal président Macky Sall parce que maa moom àndaguñu mm-hmm. man loolu laa ko waxoon kooku am na lu mu gis sant man parce que dani damaa gis ne Thiès Nord da ngeen a war a am fulla am fayda lii la ma wax. Mhm. mu ne ma parce que bi ma toogee damaa gis politiciens yi ni fay def moom dëkkul Thiès Nord dëkkul Medina Fall mu ni mhm. gis na moom fu mu dem ak lu mu dem am na lu mu gis ci man affaire yi tur yi di ñëwaat affaire yi ñëw mu xam ne man am na lu ma représenté mu ni kon ngir yàlla kon Ousmane booba euh, Ousmane Diop bi ak loolu dem leen ngeen seeti koo xam bu ngeen ko indee fii ñu fexe ñu waxtaan yéen waa koñ mhm. boobu di ngeen mën a ànd soqaliku ngeen wékk seen doole mu dem ne ko jërëjëf sa analyse rafet na sa yéene rafet na loolu c' deux en 2014. Mhm. juste après les les élections euh, municipales. xam nga kon mhm. kooku xam na man li ma représenté xam na li ma def parce que daje naa man ci terrain bi. d' accord euh, Abdou mii nga xamante ni nii moom moo nekk euh, vice premier vice président de l' assemblée nationale. Mhm. Abdou Mbow man ak moom. bi ñu daan nekk université moom ma magoon man ma nekkoon vice président set mhm. moom bi ñuy renouveler man ak Babacar Diop euh, bu FDS. Mhm. léegi la waar. Euh, jamono jooju ay tendance dafa amoon. Mhm. Abdou Mbow ak ñoom Kodjo ñoom ñoo nekkoon pavillon B. mais man daaw ma dem foofu sax nekk naa université ba jóge fa maam Abdou Mbow bu ñoo tegante bët à l'université donc ñi daan négocier ñoom nañ daan dem di négocier Yankhoba Diattara laa musa tegoon te bët ba ñëwee ci ay problème mu set ak tamit problème mu euh, euh, euh, kii liste blanche ak liste zone ci faculté de lettres. Mhm. donc kooku toog naa ak moom ci sama néeg ñu waxtaan ak feneen ak feneen. au moins man xam naa loolu. d'accord beneen bi des mooy Abdou Mbow bi ma koy gisaat. mooy mhm. bi may jàppale APR. ñu dem coalition wal Sénégal ñu war a dem Thiès. Mhm. en en deux mille neuf. boobu ba APR man Ousmane Diop maa leen njëkk a financé à Thiès. Mhm. maa njëkk maa njëkk a nekk Thiès waa di jël ay millions dugal ko ci APR. Mhm. je pèse bien maa nekk Thiès waa bi njëkk a jël ay millions dugal ko ci APR bi ñuy dem élection locale deux Abdou Mbow keroog rappelé na ko ci meeting bi amoon Medina Fall euh, mm-hmm. sama euh, xarit Seer Gueye di ko defal Maodo Malick Mbaye mm-hmm. mu ni effectivement Ousmane Diop bi ñuy def élection locale 2009 suñ daan dem bi ñu ànd ak ñoom suñ daan dem pour jël nit pour dugal ko ci liste yi ñooñ ñi dañ daan làqatu mm-hmm. daaw ñu ko ñeme donc tey jii yàlla la la def jamono jooju ki njëkk a nekk sunu suñu conseil municipal mooy Seyna bu njëgën may fàttali ko bi ñuy defal liste yi euh, képp koo xam da ngaa nekkoon di jàppale mm. président Idriss Seck ci réew mi pour ñu dem wuti extrait naissance wala ñu dem wuti casier judiciaire timbre yi nga war a jënd pour dem constituer liste bi gars yi dañ koo yokkoon wala ñu naan la mm. timbre amul ba xam ne pour nga defar sa liste yow légaliser carte d'identité wala légaliser ay kii yooyu da nga amoon problème bi. alors ñu nekkoon tribunal ba gis nga li may wax ni dama am seet gis nga pap pap pap Sarr bi nekk mhm. bi nekkal Siré Dia mhm. moom jamono jooju moom moo nekkoon ki nga xam ni moo doon nekk tribunal bi di jaay di wut di pos am nañu possibilité ñu ñu ñu ñu ñu jënd timbre yi timbre cent franc la daan de gars yi dem jaayee ko deux cent pap pap Sarr moom moo dem trouvé ma ku ma jaayee cent cinquante lépp loo xam ne loolu la fa def dossier. Casamance ak ñeneen man mi maa ko joxe. d'accord maa ngi fàttaliku si la bi ñuy taxaw. Mhm. Abdou Mbow woo ko ñu ko dossier Kayar yi moo ci des ak kaw ma kanam yi ñu war a yónnee di expliquer taaloog siggi xool ma fi nu nekk mun ma Ousmane Diop mun ma mun ma jógal nga dem lépp luy li ñuy lijjanti li ñuy kii zéro. d'accord ma taal sama oto daal dem. Mhm. jour boobu je me ci campagne bi di ak yeneen ak yeneen. maa ngi fàttaliku sëy bu njëgën ni ma soo amee mu xaalis wax ma booba dem nañ ba nga xam ni lépp loo mënoon def nga ko ci sa carte bleue visa sax euh, plafonné bañ la semaine prochaine ngay retiré sëriñ lañ njëgën wax bu tu garaaw la moo wax bu bu mu touché te dama koo seede ci ay karam mbokkam mm-hmm. mu ne ma soo amee mu xaalis wax ma may woo sëriñ si yërim Seck su ma ko ñaanee un million sax mu mayam Mm-hmm. yàlla def ma woote France sama conseiller defal ma euh, retrait exceptionnel ma doon retrait ñu développé situation bi ndey su koy ma di ko nuyu de passage euh, ànd naa dajanteeg moom mu tee def témoignage boo xam ne sama kanamu soxna euh, dama ko rafetlu muy ku ma naw parce que moom laa gisoon Seynabou Ndiéguène Abdou Mbow docteur Augustin Tine bi xam ni jour bi nga xam ne ci lañ daan taal këram euh, ay ay ay militant di leen ñuy taal seen kër ca Fandène jour boobu bi Abdou Mbow wootee Seyna bi yow man man ak ñoom taal ñoo dem wallu ji leen foofu noonu euh, ca ca ca ca Fandène tey jii xanaa kenn ngootu la dem di taal kër kër kër militant Augustin wala dara jamono jooju métti woon na ah mhm. beneen bi mooy mhm. bu nu fàttalikoo bu nu fàttalikoo euh, ci campagne boobu métti woon na président Macky dernier vendredi bi nga xam ne ci la jaar mm. ñu ngi fekk ñun ñi ñuy def meeting am à tax ko Médina Fall ci marché ngelaw bi ay dix heures ci la Talla la coupé eh, eh, tournée bi ñu doon def ni ma Macky Sall mooy dugg si Thiès président Macky Sall donc ñu dem jëli ko tab de commune comme commune ci laa ko nuyoo wax ko yóbbante nuyu mbokkam donc jamono jooju noonu. Mm-hmm. bi président Macky Sall traversé Thiès la traversé. Euh, place de France traversé mu sante war a di jëm julli ci Touba bari nag ñoo xam ne ñi ngi wax naan ay militant première heure la nan la mais loolu ñoom fu nu nekkoon man gisuma leen mais su amee ñuy revendiquer ay militant première heure ñun bokk nañ ci ñi ñuy revendiquer ñi njëkk jël suñu million jël ko dugal ko ci APR donc loolu 2009 la te ban koy def. defuñu ko parce que danoo xam ne président Macky Sall day nekk président wala kii na ko def parce que combat politique moo nu boole woon te def nañ ko te regretté wuñ ci dara nag. d'accord mhm. léegi Ousmane dégg nañ la nga ni li nga xamante ne moom mooy militant première heure bi nga wax. Euh, lim nga fi nga xamante mooy jaar-jaar yi nga wax euh, sonn nga ci terrain bi suñ ko mënee wax noonu instant yi yaa ngi milité fi nga xamante ne moom mooy zone nord tey ji sonn nga te souvent yéen dañuy wax politiciens yi moom dañuy xaar li nga xam moom la récompense est-ce que Ousmane Diop tey mi ngi xaar poste ci fi nga xamante ni moom mooy zone nord ba nga xamante ni fa lay militer au niveau euh, départemental. Euh, soxna si Roqe euh, man depuis 2007 bi ma yàlla mayee ma commencé liggéeyal sama bopp di am samay bénéfice allo Ousmane. maa ngi lay dégg depuis 2007. ma laa dimbalee ba commencé liggéey sama di am sama bénéfice ci laa jóg commencé yaatal di ko bokk ak waa zone boobu yëpp waa euh, donc loolu lu ma yàgg di def la dem ci askan wi di leen jàppale te booba waa PDS laa daan jàkkaarloo mais est-ce que PDS moo taxoon may def loolu su loolu moo taxoon kon découragé naa ndax nit ñi ñi daan ñi daan xeexal PDS daan dajeeg man ci terrain bi. Mm-hmm. tey sañu ci ñoo taxaw foofa di am na ñuy wax nit ñi leen di xool te pourtant man maa ngi continuer di ko def ñi daan nekkal yeneen parti coalition yi di leen représenté di xeex man foofu tey jii maa ngi continuer di def loolu te ñoom sañu ci ñoo taxaw di wax kon ku nekk jaar nga fa ñu weccee maag ñu jeccee la ak Ousmane Diop waaye man ci politique. comme bépp leader politique bu baax bépp responsable bu baax bëgg nga dara ci politique parce que say militant moo tax ak say am di jàmm man damaa jàpp ni politicien bi man warumaa am ay sëriñ yu ma gëm ay xarit yu ma gëm ay mbokk yu ma gëm ay militant yu ma gëm ay dëkkandoo yu ma gëm mm-hmm. ma nekk ci langue politique bi ñu soxla dara ma war a nekk ministre ñu dem di ko wuti ci ministre jàmbur ma war a mm-hmm. nekk DG ñu dem di ko wuti ci DG jàmbur ma war a nekk PCA ñu koy wuti ci PCA jàmbur ma war a nekk ci maire ñu koy wuti ci jàmbur kon li ñooñu am ba téye ko di ci dimbali ñi ñu ci war a dimbali man mii su ma dee gor bëgg lu baax bëggal nit ñi lu baax loolu bëgg naa ko parce que tout simplement du ma nungu nit di woo di am lu muy lijjanti. Mm. di ma sonn ci man am lu muy lijjanti dem ca jàmbur di ko lijjanti man maa ko mu lijjanti fi tëb wala place boobu man man faa toog di ko lijjanti di ko lijjanti Sénégalais yi ñu di ko def su ma sañoon bépp Sénégalais buy dem ci administration di fa wuti këyit. Mm. wala nga fay wuti financement wala nga fay dara loo xam sa yokkute la ci sa njariñ pour defar réew mi la sa liggéey la sa njariñ sa droit ak sa yelleef Sénégalais ba fa nekk di la ko xaatimal. man su ma sañoon man maa fay toog man xam naa ni nag maa nekk magistra parce que doonuma ko maa àtte bay xaatim ak judiciaire ken mhm. nekkuma avocat maa dem di layel kenn lan nga mën a doon kon su fekkente ni yàlla def na mhm. lépp loo xam ni dañ koy joxe tamit ba tànk loo xamante ni nit dañ ko koy takkal jogleel ko ko pour mu mën a nekk fii di ci jariñ sénégalais yi di liggéeyal sénégalais man loolu bëgg naa waaye day fekk day fekk mm-hmm. mënuma koo def sama bopp mm-hmm. benn bi sénégalais yi ñoo ma ko mën a def mm-hmm. ci kaw ñu jël manda d'élu jox la ko beneen bi ki nga xam ne moo yor képp luy nomination euh, civile et militaire muy président de la république moo ko man euh, jox la ko beneen bi des képp kuy ministre wala képp kuy DG wala képp kuy nangam. Mm-hmm. nga xam te ne da nga jël ni taf ko sawet wet di am loo koy sant ma de ñoo ko man mais man man kase mënuma xëy. man loolu tey lan la lan la kon lan la loolu wala moom buñ ko jox rek mu jël ci yooyu. Eh, eh, dégguma li nga wax. tey jii exactement Ousmane Diop lan lay wala buñ ko jox rek mu jël ci yooyu noonu nga xamante ni moom nga lim. waaw bu question euh, euh, ban ngay yóotu xam nga nit moom euh, yóotu daa ba daa wóolu gis mu yóotu rek jot te boo yóotoo rek perte équilibre man du ma yóotu du ma yóotu du ma yeeru du yóotu du ma yeeru lu ma tegal sama kanam nag ma xam ne lii boo ko xoolee xam ne lii mën naa ko te njariñu askan wi la mën naa ko ma jël samay responsable doxal ko ba mu mat sëkk su fekkente ni mënuma ko ba ma su ma xamee ko man wala ma am idée bu ma ci war a joxe ma joxe waaye du ma yóotu loo jotu boo pertee équilibre moom loola laal nga daanu du dëgg loolu nañ ko xam boo gisee euh, beneen bi mooy euh, ci côté bi nga xam ne mooy wàllu ay nomination ci laa la wax beneen bi mooy ci wàllu population bi bi nga xamante ni ni euh, moom ngay ni Euh, parce que sa yootu su dee yóotu mooy ñaar yooyu la quoi moom nga wax voilà man mais beneen bi mooy damay mën a taxaw ak samay ñaari tànk am équilibre sukkandiku ci poids électoral bi ma am ndaxte kenn umpule wul ni depuis Ablaye Wade 1983 ca la meeting gëj a am ca stade de terrain Marché Ngelaw foof ca ca ca ca Médina Fall man mii maa fi defaat. jàppale ko président Macky Sall te kenn du ko wekk maa ko fi njëkk a def eh, kenn ëmpulewul que ni bi nga xamante ni nii président Macky Sall dañ koy wutle biñ koy wutle mu jaxe lool koo wax mu ni Idriss Seck lay wutal ko wax mu ni Idriss Seck lay wutal boo tuddee Macky Sall ñu di déet man ma inventé ni da ngay jaar beneen yoon nan laa def dem waxtaan ak jigéen ñi leen nekk leen ay ndey dikkee Marième Faye Sall pour que ëllëgee bu Marème Faye Sall borom këram nekkee dikkal ngeen demalante ngeen amantale lu baax man maa jël sama alal jox ko jigéen ñooñu pour ñu nekk ay mbéy dikkee Marème fay Sall pour ñu am au moins ñu ngi réññee tey électorat boobu ñu jàppale foofu Macky Macky Sall donc suñu xoolee fii boo nee Macky Sall Macky Sall ñu la Idriss Seck man it lee mbéy dikkee Marème Faye Sall kon am na lu ma fekk foofu ñëpp a xam ni euh, combat politique bu mus a am Thiès. bi ci gën a métti mi ngi nekk Macky président Idrissa Seck ak président Talla Sylla xam nga kon dool combat politique boobu ñëpp a xam ne Sénégal gépp xam ne Ousmane Diop moo porté woon combat boobu ba mu jeexee jeex na te loolu kenn du ko lu ñëpp xam la lu ñëpp mën a vérifier stratégie yi ni tëraloon il fallait nga comprendre ni pour nga jàppale président Macky Sall il fallait que nga def benn acte tactique. boo xam ni moom may wooy parce que dama ni suñu fexee ñun ba déranger Idriss Seck à Thiès bu nu fexee ba ba ba jaxase carte gi Idriss Seck à Thiès ba nga xam ne duñ wax lu dul leen ah, la ñoom Talla def la ñoom Ousmane Diop jàppale Idriss Seck Talla Sylla Ousmane Diop Idriss Seck Talla Sylla Ousmane Diop coow li bari militant waa réew mi ak leader waa réew mi du nu tala daw di wuti biir Sénégal dara du dul Thiès la ñuy wax te Olof Ndiaye day wax ni si ma ko xalaate mooy Olof Ndiaye dafa wax ni borom kër bu bëggee jàmm bu bëggee wuti am na këram am jàmm ma ne nag kër Idriss bu amulee jàmm fii ci biir Thiès la di ca joti c'est ça la stratégie alors ñoom nag ñu topp ñu ci loolu depuis 2016 ci la topp ci loolu am jàppale indi ña ngay xëcc daw ci mairie indi bu problème jëf-jëf talu ñu sax ni Idriss Seck mi candidat la au niveau national kon ñun mën na noo fàqaate mën nañ ñoo xañ mën nañ ñoo euh, Euh, mën nanoo ñàkk parce que yàgg nañu dem élection am zéro ah loolu dérange wuñu yàgg nañoo am zéro ñëpp ñu yow la ñëpp tàcc ñu ba yaakaar ñu dem daal am zéro te teewul ñu ngi ko ñun loolu xam nañ ko ci politique mm. mais li ñu amal mooy finalité moo am solo est-ce que bëggoon am nañ ko wala amuñu ko liñ bëggoon mooy ah wutaloo Macky Sall parce que danoo jàppoon ne Macky Sall bu amee euh, deuxième mandat mooy intérêt Thiès mooy sunu intérêt ñun loolu lañ doon dox. moo tax ñu dékkoon Balia dékkoon euh, dóor yi ni nit Idriss Seck yi doon dóor te nu àttoon nañ ko nag te amoon ci stratégie am ci sunu xarañte te réussir nañ ko maintenant comme def nañ ko ba yàlla jàmm am li nu bëggoon mu sotti maintenant président Idriss Seck jóg na tey jii fekk président Macky Sall te loolu ñu dañ koo théoriser woon avant wax nañ ni Talla Sylla Macky Sall ak Idriss ñu ànd ñoom mooy seen seen jàmm. keneen ku ci moy du la ji ba tey ji loolu wax jooju moom ñoom ñett suñu ci ñëw parce que dafa am coalition Kurok Sow dinaa ci ñëw mais tey question bi nga xamante ne moom laa bëgg laaj laa tout de suite euh, sànq tudd nga say relation wax bi nga nekkee université wax Abdou Mbow wax Yankhoba Diattara taal si la wax nga wax ci li nga xamante ni moom seen ay stratégie yi ngeen doon peaufiner ak question bi Ousmane Diop lan mooy sa ay relation ak nga xamante ni mooy la question bi daf ma daf ma yéegul ma ni tey jii la nekk ay relation yow xamante ni mooy maire de la ville bu Thiès Talla Sylla lan waaw tey sama relation ak monsieur si la moom musul changé donc euh, euh, dama moom mu nekk ci wàllu politique damaa ànd moom liggéey euh, ànd ak moom di def politique mu yàgg lool ñu mën tous les combats politiques et ma doon ci koo xam ni wax dëgg yàlla moom da koy wax sax bu nit ñi dee def benn nga def fukk loolu la ko tënkee beneen bi mu mu taxaw xamal ma ne ma euh, politique moom bis boo teeyee kenn du la ci seen waaw donc euh, euh, ndax ndax boo déparé ni poussière la ni gis waaw moom nangul na ma loolu ci ci ay stratégie stratégie politique yi nga xam dama koy teg nangul na ma sama engagement nungul na ma aussi sama dëggu ak sama jub nungul na ma ko Euh, kon euh, li xam ne moom laa seq ak moom ci wàllu politique euh, lu ci bari na nangul na ma ko waaw donc li may li may rek di ma ko conseillé mooy tey ak dal ñaar yooyu laa gis ni mooy toujours mooy ñëw ci conseil politique bu may jox tey ak dal waaw donc loolu nit ku ne soo amee sa nit loolu nga koy wax looy def def ko ak tey looy wax ànd ceeg dal loolu moom sa yaay ak say mbokk ak say xarit yëpp da la koy wax beneen bi des nag mooy relation yi nga xam ne moom euh, euh, bu weesu na affaire politique euh, loolu damay jàpp vraiment ñu bari xam nañ ko samay mbokk xam nañ ko mbokkam xam nañ ko ay xaritam xam nañ ko samay xarit xam nañ ko loolu moom yàlla def na ko waaw ndax am na loo xam daal seq nañ ko te loolu moo gën a foor lépp très bien alors alliance bi ñuy woowee mburu ak soow pour faire euh, allusion ki nga xamante ne mooy sa Seck ak président Macky Sall yow lan moo ci sa jàngat waaw xam nga man damaa musa dama musa teel wax ci côté boobu damaa teel wax ci côté boobu li ma leer man maa njëkk a théoriser ànd président Macky Sall Idriss Seck ak Talla Sylla kon su loolu ànd boobu amee man mi gisoon loolu man mi waxoon loolu kon feuille de route bi ko war a tracer ni ko war a doxale kon xanaa kon nit ñëpp war na noo xam ne yor naa ko mën naa koo guider mën naa cee jàpp mën naa ko wël ndaxte soo gisee lu kenn gisul woon nga wax ko lu kenn waxul woon kon jàppa nga ni lii bu amee lii ak lii moo ciy topp kon man war naa cee mën a nekk acteur boo xam ni boo dawalee li ngay dawal ñetti ñoo ñëpp dañ ci gis seen bopp Cees gis si boppam. kon tey pour def lu dul rafet ànd boobu am na ñoo xam ni. Euh, comme li ngay wax rek ñëpp mënuñoo àndandoo d'accord ak nangam tey jii gis naa ñoo xam ni parce que maa def ay sondage donc sondage yooyu euh, dama ko jagleel dans la commune de Thiès Nord rek laa ko jagleel euh, parce que xam naa lafa fa Idrissa sek Seck représenté xam naa la fa taxawaay ba fa APR am xam naa man Ousmane Diop bi représenté fan askan wi na ma fa taxawee alors bi ma defee sondage yooyu man dem naa ba gis ni nit ñi am na ñoo xam dañoo jàppoon ni Idriss Seck bu ndam ànd ak moom di ko votel dañ ko daan votel parce que dañ koy bañal gàcce ci kanamu Ablaye wan dañ koy bañal gàcce ci kanamu Macky Sall ak loo mën di ñëw borom kër ga lay toog fa mu toog rek daal ni ok ñëw toog ni Idriss Seck du gàcce daal di jox affaire bi am bi lii xewee nag am na ñoo xam dañoo jàpp ni ñoom amatul lu warloo ak Idriss Seck parce que li daan bañal jàpp na ne bu ko Sénégal yëpp day wax loolu ñoom loolu lañ gisee seen gis-gis la am ñoo xam ne acteur politique yoo xam ne gis nañ ni loolu intérêt Thiès la mais am militant yoo xam ni ñoom ca la nekkoon ca la nekk mooy danoo contre Macky ci loolu la nekk ci militant réew mi loolu génn na ci li nga xam ne moom laa enquête yi nga xam moom laa commandé. d'accord alors ba tax na. Hmm. man may wax ni su élection amee il faut que ñoom ñu ñu ñu tenir compte ci loolu. Hmm. parce que am na koo xam danaan voté Idriss hmm. yi ñu jëm ni mode élection maire bi dafa changé. justement justement. nit ki day xool ki ñu jiital ci gox bi ndax la ñam wala doy ndax daan àndal baat ba mu ko daan jox ak militant am ñi leen votal leen diw dana tax ñoom ñu suivre lool wala déet loolu lu ñu war a tenir compte boobu dana ni diw mi de doy na ma ñoom ñu doon wax danoo bañ ko gàcceel Idriss Seck il faut que ñu def ba nga xam diw mii de doy na ma su ko defee quartier nangam ak quartier nangam ak quartier nangam ak quartier nangam dinañ ci gis seen bopp waa gox bi en général dinañ ci gis seen bopp fi gën a peuplé ak koñ bi gën a kii dinañ ci gis seen bopp te wóolu nañ ko te kooku am na jaar-jaar politique am na poids politique kon kooku bu ko jiitalee mën nañu jox ndam waaye buñ ko bëggee dik ci nan jiital diw parce que Idriss Seck la nañ jiital diw parce que Macky Sall la. nañ jiital diw parce que euh, Talla Sylla la booba déjà da da kii jaar nañ